Coco Pulp, un soin délicieux à l'huile de coco pour une peau lumineuse, lisse et soyeuse. yéen ñi bëgg série Pod et Marichou te yàkkamte jot notification yi pour xëccoo PVB des bi ci biir commentaire yi gaaw leen gaaw téléchargé suñu application pour bokk si ñi njëkk seetaan. léegi man ma leen owoon pour ñu waxtaan ndax xam ngeen ne li fi xew yi vraiment du lu rafet Mana Momo? Momo? Hah? Dia. Toma. Marichou fan li fi xew daf ma metti torop torop torop te yow Marichou da nga mérité wu lolu. parce que ba nga duggé ci kër gi di fi sey ba tay. fi dara lu ñaaw lu tax ngay génn kër gi bëgg nga sa jëkkër toog nga fi ni nga fi war a toogi yaa ngi fiy def li nga fi war a def li jigéen ni jigéen di sëy yaa ngi koy sëy te nii nga dellu see day bettu ndax xamoon naa ne di nga dellu si waaye nag man maa fi newu su ma fi nekkoon de doo génn kër gi mbaa xam nga loolu su ma fi nekkoon doo bouger fii ndax du dara loo fi def lu ñaaw lu tax ngay génn kër gi yow nag Eva maa ngi lay gërëm di la sant ndax wone nga ne yow yaay mag yaay ñaareel waaye yaa mag Marichou li nga taxawee rafet na na nga continuer noonu bul changer waaye li fi xew bu fekkoon ne moom moo ko def du ma jaaxle ndax moomu paaseem inkete woon na ma ma jóg ci di ci deewoo ba mu dellu si waat ci kër gi waaye yow yow pod yow yow dal lañ la xamee yow problème dina am ci kër gi nga réglé ko te doo nga waaye keroog nga mel ni ku ñu xabtal mel ni gaynde yow lu la dal lan la loolu daal bu mu amati am nga jabar yu baax jabar yu téye sa kër jabar yu la bëgg il faut que nga jàng maîtriser wu nag Le problème grave grave pas. bi ku am nga ku am nga te bi bu la def lu ñaaw wax lu ñaaw ngeen man jur considérer que vous avez le même sang te bu kenn xaj seen diggante ngeen wax amati mukk ci d'accord amati je pense que man def je ça dëgg la sama emporté j'ai juste analysé les faits bi mbir j'ai pas eu le temps de réfléchir donc je def loo xamante franchement je ne te pas regretter bu baax mais il m'a suffi juste d'une seule nuit pour ma de xalaat et je me suis rendu compte que j'avais une superbe femme bon deux superbes femmes sax laay parce que nous ñaar pas kenn gënu leen donc daal li à yaa dama bëgg ñu ko. bëgguma si sax revenir yaa ah, man bëgguma sax xalaataat li xew nañ jàll si leneen. loolu nañ jàll yal nañu yàlla musal si seytaan yi daal te boole leen ngeen nekk benn. amiin waaw tey sax kan moo aye. Eva moo aye. Ah. Karaaw na ma di chaudre comme ça ñu mën a waxtaan bu baax. waaw loolu rafet na. merci. bien. waaw dem leen nag si kaw ngeen waxtaan. d'accord ñu àgg ci eh Eva, ada mau cikau? Hum, eu vou sama jëkkër mu ngi ci jàmm waaye mi ngi tane bu baax a baax mais dañ koo mujjee opéré opéré mais la moo tax ngeen opéré ko dala rek méttu biir kese la fi indi dala rek daa fekkante li moo am noonu il ñu opéré ko te si opération bi dafa mujjee perte deret bu moo tax léegi da xool ci famille ku ko mën a may ci ni mu gën a gaawee rek dala boo defee ni ñun dañuy jaaxal soxna si lii du dara léegi yow oote rek xool ku ko mën a may dara rek léegi lu si mënta am rek maa ngi ci biir dégg boo ko daane laa toog ñu ngi nii hôpital danañ ko mujjee opéré da cee perte deret bàyyi ko te fekk mu fi ci hôpital bi waaw donc léegi yow rek xaar loo xew xew naa ko li fi jotoon na xew yëpp jàppal ni jàppaluma la ci dara du question ni damaa ñàkk fayda de mais le fait que nga mere ma ci sa droit nga nekk te comprendre naa la ci bu baax mais lenn rek laa lay mooy nga may ma rek ma expliquer la. mu ne mu jël ko koy li ma wax ci suuf loolu la rek man d'accord naa ne man maa def erreur donc xoolal. nañ jàll ci leneen ñu fàtte loolu on passe à autre chose. Samif dégg naa la xam naa ne baal nga ma mais lenn rek laa bëgg muy setal sama der Samif Bachir ëmboon naa doomam par la suite la dem prison après ci laa avorté loolu nag moo waral mu may topp ba léegi c'est vrai que bu ma la ko waree wax yàgg na trop mais instant bi maa ngi koy bu baax lu waxuma la ko attends. d'accord voilà loolu yëpp amul solo je comprends te xam naa ni man ak yow problème yi ñu am erreur de communication la léegi c'est réglé mais je pense que fi ñu toll nii amatoo dara donc mën na mën na jàll ci leneen. déedéet sama am na lu des. des. waaw. lan la. ma génnee sa kër gi woo naa Bachir ba maag moom gisante nañu mais gise boobu du lenn du dul plainte bu mu déposé contre yow moom rek laa bëggoon mu dindi. sama yëf mag yow suñu diggante bëggatuma mu am benn réeroo. te yaakaar naa ni instant bi wax naa la lépp li nekkoon ci man. d'accord loolu kese kon baax na parce que mënuma ko si nga ba nga génnee kër gi ba dem ñetti fan ñi ci teg tuuti ma dof waaw. je me suis rendu compte à quel point tu comptes pour moi suis douter mais comme je tu je suis de mon côté dama leen envie ak je envie c'est de me relaxer. Je je suis sa de ba d'accord. Hmm? Deci, și am zis. dalal ko dalal rek dalal dalal wuy ma dafa nak dalal sikil wax ak man sa papa isa bi alhamdoulilah mais dafa soxla ko may dara dama bëgg ñu dugg nga xol ndax yéena bokk groupe sang soxlawu ko soxlawu ko ñoo même groupe ñoo résultat yi génn bien vrai que yaag sa papa yéen a bokk groupe sanguin mais il s'est prouvé que doo ko mën a may deret. lan mooy loolu. c'est parce que da ngaa anémie. mais qu'importe son papa dama koy may deret ak lu mu mënti doon. non ñu risque boobu mun ko jël vraiment. qu'importe même je prends les risques. je prends les risques amul problème. laisse tomber ça sert à rien yow ak pas bien ngeen feebar. mais mon père il est malade. madame. mon je suis au négatif. je suis un donneur universel. Samir. Laisse-moi faire. Regarde. Ça va. Eh, ah, ne sais pas de je ko dal je ne sais pas sama papa bu demee Je papa remercier ci li fi jot a xew yëpp gis naa ni ma taxaw franchement maa ngi lay remercier bu baax. Marichou jarul nga may remercier parce que bu dara sax sa mag la te pot suñu jëkkër la donc tey ji su nekkulee ci yoon ñu ñoo ko ko war a rappeler pour ay bi moom amul benn problème parce que mosoon nga ma ko may. merci. maa

ci jàmbaar waaye donc comment la mu naa ko waaye maa xam saa ngi nii kon kon nga di gisee ma waaye kenn nañ gis loolu ça se passe ah oui ça va nii rek ah à part sonn quoi sonn ah oui li ñuy def yaa ngi si jàmm de maa ngi sa ñaari jabar eh booy yow toogal foofu noonu booy góor balaa baax ñaari jabar ngay am dëgg gaa yi li ñuy wax gaa yi su fee dugg di raan yi. Hmm. borom ñaari jabar yi ñuy dugg topp ci borom benn yeeg. seen wàllu yow doo raan da ngay tëb plongé ngay def. ndax yow pare <laughs> eh du ma mun yendu. jërëjëf gisee ma ñëw fi sax. Hmm. booy su ma la gisee nii rek ma xam ne booy yaa ngi ci problème. la moo xew. moom mag. ñàkk naa sama jabar. franchement je moom sa ni nga waxee sama yaay dafa ëpp yow ak loo mer mer mer man ñaan c'est vrai tu as raison hein, parce que kilifa moom du wax xale di am leen lu ci bu mais man taxul ma Max il est temps que nous agir. agir ci lan. mais Max yow woon la sa jamais du mus a nangu suñu relation man ak yow te man benn solution kese laa gis ah. man ak yow ñu fàq. fàq. si. yow sa xanaa da nga dof fàq jëm fan. mais yow xanaa gisoo suñu relation situation bii nii bëri ñu ko fi dund di ko souffrir te kenn waxul mais xanaa du ñun dañuy jaar ci yoon boobu noonu ni ñoom il est temps que ñu démarqué wu dama bëgg dama la bëgg mais nañ ko dund. laajuma la dara mën naa la yor donc man lenn rek laa la ñaan man ak yow ñu dem. li nga may wax gënoo ma ko bëgg de nekk ak yow rek laa bëgg mais moment yi c'est impossible parce que Marichou dafa nekk ci souffrance te mën ma ko abandonné tamit. mais yow Max da nga dof wala lan maa ngi waxu lii nga may wax waxu Marichou mais Marichou elle sa vie te tu mérites pas d'avoir une vie toi eh tu mérites pas d'être heureuse nga may waxee waxu Marichou. je te la li ma la wax moo fi ne fan laa fàq jëm fan say dama am kilifa mënuma tëb tëb tamit ànd ak yow dem fan laa jëm. mais tamit li ma la wax man loolu laa gis comme solution. sa solution bi baaxul bii moom baaxul te bu fekkee loolu moo tax nga woo ma fii jàpp ne li nga wax dara baax wala Max. Tanya ada Attends, attends, attends, booy dafa naw booy di mënul nekk Boy, forcément am na explication. mais soo amoon explication du ma toog fii di wax mais boy, mënoo nekk ak sa jabar

Je la trompe avec Nam. Là Dans quelle trompe avec Nam <laughs> Libère tout le monde. Je te l'avais dit. Si tu te souviens-toi, tu es au bon ce cœur avec Magui. Je te l'avais très bien dit. Nous on a le droit de tant que Magui, tant que c'est digne de Nabu Djerou. Comment on a dit que souffrir l'eau Libère tout le monde. J'avais vu ça. Mais boy, franchement, là, moi, c'est un problème avec Nabu. boy na boy sama seytaane en fait booy bi man xaw ma lan la ma def en fait man mënu ma mucc si moom. te en plus. booy Nabou dafa ëmb sama doom. la non bu da ngay këf wala la Nabou dafa ëmb sa doom. dafa mel damay gént wala je sais pas quoi li kon si je récapitule da nga ëmbal doomu jàmm sa jabar dem mais y a rien de plus logique mais c'est sa jabar dem ba li jigéen bi mu nekkoon day takk ay bagages am dem yoonam donc instant amatul dara fii loo koy reprocher elle a de très bonnes raisons de partir te nag kaay ma xamal la benn affaire gis nga les conséquences tu vas assumer sa jabar dem na dem na maintenant nag say responsabilité envers Nabou tamit da nga mu jeex. samay responsabilité envers Nabou maa ngi koy assumé ba mu jeex d'ailleurs wutal appartement te charge am yëpp koy gérer. kon jeex ko léegi maintenant yaa yor si nga ko. nga la. def. pour yow problème adna yëpp takk moo résoudre. mais soo ko lan ngay def. waaye takk moom booy nga ma Nabou nga xam ne dafa dof man xana suma ko takkee mooy day jël buum rek takko sama bakken bi di ma diri. boy bul yeb jaan yaa may dégg. waaye ma nga benn solution boo fi mën a def. takku mu benn yoon nabu. su takku la ngay def. instant bi len lay def xooli sama jabar fu mu nekk andiwaat ko sama biir kër. parce que espérer nga mu ñëwaat. kon mu ñàkk jom way boy lii jigéen kan boo ko def day takk ay bagages am dem yoonam. yow yaa toog fi tey di ma wax li maa la koy wax kay la nga bëgg maa la koy wax bien sûr boy ka wax dara boy jigéen hm. toogal nii rek. àqu jigéen ñoo la dal li nga doon def géej boobu ba léegi nii instant moo lay def mu toll nii. dama yow su la àqu jigéen dalee da ngay dee yow. mu ne maa ngi yor sama ñaari jabar di leen gérer tranquillement ma ay. instant yi sa yaram neexul bàyyi ma wax kii toogal booy. mu añ. non man ma toog boutique ba kenn nekk fa cooji ma. Marichou. ça va. ça va bien. ça va alhamdulilah Oui, ma yow sa ëmb bi Donc ko wax jabaru sir bi man mii waxuma magi dara de eh yow nga capable Xamna bu baax li nga sañ ak lu nga sañu. gis nga jabaru sir bi bu amé dara lu ko metti xamal ne yow mi ya ko ko tek. mais waxuma magi dara Xolal sir léegi nii la fi jóge bu fekkente ne danga yaakaar ne sa bopp bi yëngal sëyu siir bii moom mooy tax mu takk la xamal ne siir pareegul sax pour takk la. Mm-hmm. dégg wuy ma xam nga lan laa lay yëgal nga fexe ba dem jël jabaru siir boobu noonu delloowaat ko ak moom yaa ngi may dégg. ok. ñàkk jom ba bëgg a dee. merci beaucoup merci pour l'information. may wax ne jaay ak seytaane xamoo sax li nga def yow. kii daf ñuy rusloo rek man da tiit naa sax man ba ma bokkee ak moom direct xaw ma ban façon nit la.

well king of india shi boylan dote te so ko de ya am do ni ni mo ko flow fra eh mo eh kai fio eh fio Ça va. Ça va Ça va. Yani, tudung ini. Kung makonta mo na fanyo puyan do si et eh, vraiment comme nous ma la ko waxee fan yi nañ am quelques altercations mais je pense que yàlla wis na si ndox bu sedd donc euh, tey vraiment dafa ñëw pour jéggalu ah c'est bien surtout moo tax yaakaar naa ne balaa ngay mbëj kii mu sàmm moom nga xam ne muy wëlis ba pare hmm. sàmm su njëkkee wëlis doo ko bàyyi mu wëlisaat ba tey en tout cas Doudou xam ne sama yaay dafa yàkkamti woon tey vraiment pour gis la c'est un plaisir te vraiment naa kontaan na. waaw ah waaye man kay kontaan naa et puis ngeen ñaar alhamdulilah. ana sa yaay. xam moom elle est émotive moo tax xam naa effet bi mu lay soog gis nii moo tax émotion bi moo tax bu xool nii dala xoolaat rek <laughs> mais mais du dara sinon. en tout cas xamal na fii sa kër. absolument sama yaay xam naa ko elle va te considérer comme son propre fils. absolument tu es mon fils. tu es mon fils tu es le fils de Seydou Diop. fii sa kër la tu viens quand tu veux. dégg nga incha allah. kii et sa mag la kii sa petit frère la tu viens quand tu veux. Mm-hmm. dégg incha allah man je suis très contente. mun naa yóbbu. Momo s'il te plaît ginnaaw ay jàmm donc Doudou a fait le déplacement ñëw ba fii nii donc au moins nga am courtoisie ñu accueillir ko toog waxtaan ak moom. Pod dafa ñëw baal si ak. man baal naa ko àq mais jàmm jooju ngay wax motax tax ma bëgg yeewee ko maman mën na dem. waaw waaye Momo dama bëgg nga nekk nit. incha dama bëgg nga nekk nit dégg nga li ma la wax. incha Não na besoin en não. quoi não não moom gis nga ni ngay gis não xool bi dafa nekk daa bëri não rek. li nga bëri fait comme não toi ça yaa ngi sa gàlle. não naa trop vraiment. il faut venir não tu veux. incha allah incha allah não kër la. tey kay ñu ma não woon tey diitoon naa trop trop não ci jóge ci man de yàlla não tey. alhamdulilah alhamdulilah. waaye nag woo não sa yaay. Ah. moom moom bu tiitee rek tension bi da koy. non baax na noonu baax na. Ah, waaye sant yàlla daal. sant yàlla ndax am nga ku la may dara loolu gënoon important. alhamdulilah alhamdulilah. ça va Sow. ci doon naa ne papa. <laughs> yaa ngi tane bu baax. oui ça alhamdulilah. salaamaaleykum. Cissé nga def.

Doudou tu gan ah Marichou si yëpp neex <laughs> non Doudou Diobène la donc xam naa certainement bëgg de ceeb. il faut bien manger La <laughs> bien mais sinon t'as pas trop galéré pour ñëw fii hein? non non kii moom andi Père Lopez. Ben. comme ça papa moo lay Père Lopez si si. <laughs> c'est mon beau-père. ah bon. Lopez. Eh. cool. maa ngi man na trop quoi. lekk bi sant di la ndax yar fi ñu a yar ay ko. lu xew nga ngay wax loolu. non mu xam rek. yaru dafa baax de. ma ne lay taw. moo gën ngay wax loolu. yaa ma waxuma loolu. gis nga toogaay bi nii ma inspiré lu bari en fait retrouvaille bi je pense que daf fi gëj et c'est bien li dafa rafet am naa benn idée. lan la. xaw ma nag mais je pense que war nañ mën def benn yenn boo xamante ne de retrouver lay deux. toute la famille. Comme na su toute la famille je veux dire la grande famille nous ñuy ñëpp ak sama belle famille tamit ñoom Taalee laa ñoom monsieur Lopez ñu dem.

appliqué woo ko de. bu ko faale lekkal nen fii de moom ëpp la fi doole lekkal ba suur moomu damaa bëgg nga téye sa làmmiñ ci lekk mais maa ngi suur ceeb bi ñaanal ko macha allah. lekkal yi ma ne damay lekk di naan. Allô Allô Monsieur Lopez Oui, Louise. Ça va Ça va Ça va, je vais bien. En fait, si c'est mon C'est parce que j'ai un problème. Un problème Jusqu'ici, plan de l'IP, Tout marche à merveille. Mais ça dom Eva Mon problème. Ma fille Mais tant que mon monde est perfect, je ne veux pas am. <laughs> tu sais, Louise, c'est normal, hein, l'olpertement. Eva c'est une vraie Lopez double ko de il faut que tu sois très intelligente pour que tu jaar ci si si si je vois <laughs> mais j'ai une idée en fait parce que je soupçonne que monsieur Joe, ak assistante bi a am relation. Quoi <laughs> mais là, c'est clair Si je fais tout ba Eva yëg ko je génn na entreprise bi <laughs> te si ce que je ko defee sëy mais tant pis pour elle hein. Moi, t'as mané avant de faire quoi que ce soit ma ñëw wax la ko ba pare. man sama mission là, jox Donc, ko réussir. ok d'accord..! En fait Eva Pod lu seen sëy yëngu-yëngu-yëngu jàppal ne dañu se ils sont inséparables Faites ce que tu as à faire un point sur tout amul ça marche. soo may mission accomplie là, bëgg merci. sois prudente.